taxaw nag de. macha allah. te xale yi naan feros de waaju feros ak ñiy toog. moom na ma dara dañ may toppatoo rek dëgg sa xel. loolu kañ yàgg na. may toppatoo di ma jox ay jus may naan. ay moom xaw ma kan moo lay sañ seet. Hmm. waaye teppi nga aas li gën naan teppi nga aas. kii sama benn frère la Sidi moom mooy jox yu baax yi. yow ay waxuma loolu. waaw.

xaw ma nu mu demee noonu. sagel baa la waaye dañ ciy jóg. moo tax léegi joxatuma dara mu koy lekk. Hmm. wóolatuma ko bañal loolu. yow maa lay jox li ngay lekk te xale bi laa la wax. oh. fa la dëkk. ci koñ bi rek. fii. laa ilay lala. waaw moom bu dëkkee si koñ bi kii bi mbaa mbaa coow ci biir. Hmm, te nga koy lekkante seen biir du dëkk. gisoo jëne ni ñuy dundantee ci biir ndox mi. bu mag bi day lekk bu ndaw bi day mel noonu rek lépp di tëmb bañ a jig du dëgg. waaw man mais wax la benn affaire la. waaw. gis nga sama boy hmm. te mais nag nangu naa nga may mooy problème bi mooy des fois da ngay kontaan sooy wax sax doo ko tey ma de kooku na moom faam bis bu mag baa ngi ñëw. seen danee xanaa bëggoo koo àndal couple ak moom. fekkaat yi kay moom soxla naa ko su baraadu su. waaw ah? mais mais nag damay bañ nga may ba pare ngay wër di ko nettali. non non dama nett yow man maa la ko woo ba wax la ne dama lay may kay xanaa nangu rek bu ma ci xas bu ma ci wax leen lu ma mel. waaw kañ. ki ma lay may nag. mun nga xaadam 24 mag na 24 man na 25 man na 28 man na 29 ba 30. premier janvier moom waxi. mais yoroo photo. yoroo ma nag sama téléphone dama koy sànni si. kon maman yow da nga rek yow koo déglu sa xarit yow man maa la wax mais léegi lay doon nag. moom ci kanam tuuti nga jaar. ci kanam waaw ban ci kanam du yàgg. Ah. ci kanam rek bu guddi gi di xaaw waaj a dugg rek. wala nga bippé ma rek. suñu rek bippé ma amul benn problème ma ànd mais nag maman. noppi lay àndal. yow jantal bu mel ni yow man may naan di te. loolu loolu man yow mën nañu jubóo léeg-léeg xuloo léeg-léeg te yow bu ñu xuloo rek mën nga fa jaar. du ma ko nettali du ma ko nettali. waaw fi mu ne nii tam ci fin dan lañ rek laay dox. bu muy indaale woon dara dama jox la dara waaye indaale woon dara. kay dama rek. ok kon man dinaa jaar. def bu mu baax ñëw dégg nga. garaaw wax ji moom mënuma. ay waxtaan dafa dégg fi bàyyi dara. kii tam. ตาของนนนั้นบูมวยทุเสียสามกิสานสครบมก็ไมาเยยโลกยยิ่งกมีสีเลยบูมวยทุสลิมสวลดกอับอะก็มันกระรานมัก็ยมันนนู่นทอะต็มนาชีคำกันเนยเออบอลโลยามาตักมาวอลดึกยามาสลับคำกันดังงามิงยังจวงก็มา macha allah mel nga ni tollu soixante mille ma lay may waaye yow sax dangaa ëppal ndax dama laa may kenn mu may la iPhone rek nga doyal. ah lu may def lu may def ak sama lay ma yor bakkan ba gudd ñu mel ni ay indo rek <laughs> bañ na ko ba sax léegi fu ñu tourné koñ bi indo fu mu nekk dafa nduróog man sax bu ëpp ndax collé bee ëpp damaa sonn. sentiment la ak amour. bu yàggee dañuy duroo yàgg na hmm. ba tax na nag dama laa utal ku bees tax pour ci pasi paquet xale bi garmi la gararal la. maa la wax lii loxo ci poos tay joxe nii nii nii nii. la ma wax ma gam. laay day da la ak lu ma wax ci moom sax am ëpp am na lu des. maa mun naa joxe sama robe ay daal ci feet lañ nekk nag maman nag. déggoo ma de 24 lay tàmbaleeg yow. 30 ans fin d'année bi yaa ko ma naan fin d'année bi sama làmmiñ bi sax kooku doy na dis gan déggoo ma lii di sëba rob moom bañ na ko sax lépp marque la lépp wax ma ana waa ji léegi léegi léegi wax jox naa ko rendez-vous nee naa sama xarit bi xam naa dafay ñëw waaye doo ma ne dafay ñëw dafay ñëw léegi léegi mun fiy ñëw may ma ma dem sama kër capp cappal tuuti ñëwaat maa ngi ñëw léegi kon sa rek jarul sax ngay changé wu lii nga sol baax na. maa ngi ñëw lii nga sol baax na. maa ngi ñëw léegi da ngaa jongoo ma de bu lu ko kenn wax nga bañ koo gëm. Ali Baba Kumba naa kii de bu ma ko joxee te joxuma dara joxuma xam nga dem boosan bi nee na daa bënn waaye bii baa bu gisee xale bi joxuma dara lu génnee noonu. man mel ni de. dama ko 1000 francs sanos. 500 noos waaye bu génnul 50 000 de moom bande baa ngi ne booba non bande baa ngi ne lu tax ma nekk borom italie kenn du moom de de bu ne man moom maay sañ def toog waxaat ji joxuma tus laay def. waaw da ngaa yaakaar sa gan gi nag. booy eh. ma maa ko. waaw amul nuyoo de. Eh, eh, <laughs> wala juma. sagal kese la di. taranteer bi laay may ma sama jàmm góor day am fit ne naa la sànq da mel ni jën rek. waaw ndax julli dañuy lekk te seen biir. mere naa la nag man. Ah. bi nga demee bay lijjanti sama doom day mënoo mënoo lijjanti. sa yëf daa dëgër faa ma listixaar mais maman 31 décembre jot na instant bi nii sama euh, numéro gel yi dañ koy changé am naa ku mais am naa la premier. la yow da man ko chaque année moom man moom le 31 dama ko amoon. waaw mais bii di ñëw 31 moom. dama ko abonné mais 24 eh. moom xoolal amu yow moom sagal bi daraa liggéey. waaye xale bi léegi la fi jóge macha allah nee naa la comme tollu 60 mille. maman nee naa ko yow yaa ngi mel ni maa ngi. nekkul nag génne téléphone fas yéene bind la 24. xale maa ngi ñëw sol xoolal dama dama ko dama ko fóot mais woowul quoi. yow xam nga moo tax ma ma ma. ci nga dëkk nag yow. entrée. tonton. maman yaa ngi toog. ma chérie. ki ki ki kan la ni yow ki du fi def. eh yow eh bàyyi li ngay def nag da kontaan ñaan ñi da ngaa jaawale kan nga ci choisir nag da ngaa yaakaar kan dama ne la ah, juumuma choisiruma kenn kii lan la fi def. ah. eh yow yow. loo fi def laa la wax. non ma ne ko li Pape Diouf di wax hmm. ba jaawale woo. yow ba jaawale woo. musuma jaawale. ah. nga pare woon pour ñu may la fan nii yow. pare woon pour ñu may la gerte nga ñëw ràcc toog may ma. yow yow maman ah, ma bett. fu ñu koy réglé yow yaa ma gën a bett yow damaa pare ci yow. yow e nga may may. bu leen fontoo yow kan nga yow doxaan kan nga yéen ñaara yow mais nag kenn du yow ak sa gerefaat bu bari bi yow nooy fekkee ñaar ñuy génn nga di leen nga di leen nga di te yow xam nga seen diggante ñoom ñaar. yow saytaan ne nga. yow déglu ma aw ma ak yow wax damaa bëgg nga may ma te nga. wàññi sa tubaab bu dof nii. nga mel ma sama jàmm. man yow moom xaw aw ma lu may wax ak yow yow nekk sa tàppet nga danga yow fidèle de da ngaa infidèle nu ko français di wax xaw ma dégg eh, ma français. infidèle dégg ma yow wax naa ak yow may may ma wax. yéen ñaan ñi dana leer ne. ku ci bàyyi moromam ku ci nekk dina am gel baa ma am far. nii rek ngeen dem eh. bi ku nekk di. classé suñu ànd yow nekk yaa ngi farantu ngay ñëw bu mag bi mu lay may ay far ngay farantu. li la ko doon gëmloo yow yow li ma doon gëmloo yow. yow mi doon ut tur nag gel na. ah yow mi yow mi dama may na gel. yow dama laa ñaan a jox waxalal yàlla rek yow yow yaa ma dafa am xale la bëgg a may. waaw yow su ma jëloon sa bi. waaw boo leen ba mu bay ne la ñu ko sa loxo est-ce que du ko fa. boo ko forcé dina ko dugg parce que nga maa mu lakk rek. man de moom damay daal nga na xool dinaa ko bu nga yow yow seetaane bu ngan nga yow. ma ne yow nii nga mel ndege de. ñu ne ñeneen di wut di doxal. yow moom yow moom yow affaire bi xool yow fi ñu ko rey na yow yow affaire bi man nga ay dama faru. yow kii bàyyi na la te eh, déglu laa wax. waaw yow kii du dem su ko yëngu mel ni luñ ëpp seen. waa doom nday. yaayee di dee da ngaa tiit. yow ki nga xam ne sama diggante maag jom bi yow xamoo ko xale yi moom la ñuy raxasee ndax picc yi di ko sabe. mooy man wax ma loolu de waaye yow kii wat na maa. xaalis sama sutura bi sama leel bi nga xamante ne année 60 la woon ma koy nëbbu ma dindi créance bi. waaye nag xaytam bi xaw na laa rey lu xam comme loxo ñàkk. ma ne ñàkk la moo tax ma ne ko duma la may kenn sa loxo dafa am listixaara ko ndox tey daa yëfa ma dëgër comme xeer ba de. si borom fanaanoo. jeex na taal wala may dox ñu naan ma sa daal lañ ni fi nga ko. 500 bu bees bi sax. damaa fa sama fii la toog may ma jàmm may ma sax sa instant nag mu ñëw wéeru rek. dafa nay benn ceeb bu jeex. dafa nay ak benn yéreem day changé ba mën daal daal. Hmm. li ma moom. man kii waxuma ay waxam maa ngi dem dox sama yeneen business. maa la ko wax. pour décembre bi rek bañu ma si ba noo fanaan